comme niñ leen ko waxee rek ci ubbintel ba waaw li nga xam ne mooy dox ci diggante guy gi ak Reug Reug suba ci dimanche bi fële ca arène nationale euh, léegi nag ñi ngi fii nii ci rond point case ba war a jàkkaarloog ñi nga xam ne mooy askan bi ñu waxtaan ak ñoom maanaam ci combat bi nga xam ne moo am suba ku baax nuyu nañ la. waaw fay naa leen. bu baax euh, ñu xam ni suba dañuy dem ci benn combat boo xam ne combat bu am tension la entre Reug Reug ak ki nga xam ne mooy guy gi euh, doomu géejawaay googu lan nga ci amoon loo ciy sànni. waaw vraiment wax dëgg yàlla guy gi moom franchement parler nekk na mbër moo xamante ne xamuñu ko xamee wuñ ko violence quoi bon aussi tamit rek nag nekk na koo xamante ne booy bu dal la ku xam nga ku teey la te yàgg na ci làmb ñu mosuñoo gis benn violence su ñoom quoi kon li leen di ñaan mooy affaire bi nañ ko def fair play quoi te xam ne ndam li génnul Sénégal quoi parce que ku ci daan rek Sénégal moo gagné quoi kon ñu jéem a def fair play xam nga wax ak supporters yi xam nga ñu xam ne aussi tamit Sénégal ñu ñoo ko mën a defar quoi ñu jeunesse bi ñoo ko mën a defar parce que ëllëgu Sénégal ñoo ko yor quoi kon na rafet quoi xam nga ku ci nekk na ñaax supporter am xam nga ñu bëre ko fair play ku daan ñu xam ne xam nga ndam li génnul Sénégal quoi franchement loolu la leen di ñaan quoi. waaw ñu gis ni euh, Reug Reug ba mu duggisee ci euh, li nga xam ne mooy euh, arène bi ci Cour des Grands ba léegi amagul benn défaite waaye ki nga xam ne guy gi xame nañ ko bëreek ñi nga xam ne mooy ndaanaan yëpp. bëri na fi ndaanan yu bëri te combat ma day neex yow euh, entre loolu ban pronostic nga ci mën a def maanaam euh, ban gis-gis nga am ci euh, diggante ñaar ñooñu. waaw instant bi nii moom mooy favori quoi parce que ñëpp moom lañ moom lañ jox favori quoi mais nag def attention quoi parce que tamit mi ngi bëri ak mbër moo xamante ne xam nga vraiment day juumloo mbër quoi parce ku nekk gis na combat am ak Siteu quoi. waaw day jumloo mbër na def attention rek te bañ a ñëw nga que ne dooleeg noonu quoi parce que boo xam dafa naqaree bëreel quoi waaw franchement mbër mu naqaree jox cëram rek waaw bu ko joxee cëram moom xam nga parce que mbër la moo xamante ne daal xam nga ku naqaree bëri la te aussi tamit Reug Reug dafa nekk ci yoon quoi waaw kon na tey rek xam nga te xam ne carrément xam nga mbër lay bëri la aussi tamit quoi ko cëram ba mat quoi. ndaw ngay lancé li nga xam ne mooy supporters yi. waaw supporters yi aussi tamit nañ ku ci nekk rek xam nga na def fair te xam ne xam nga ñun ñëpp xam nga ñoo bokk bokk baay quoi comme waxee ñoom ñoo mayante seen biir mais aussi supporters yi ñoo far seen biir quoi tamit ku ci nekk rek xam nga bërëb boo dem rek sa mbokk nga fa quoi waaw ñu jéem a doxal loolu mu naes quoi ñu xam ne Sénégal lañ nekk daal xam waaw réewum tam wéyal li nga xam ne mooy suñu reportage li jëm ci combat euh, diggante guy gi ak euh, kii di rëg rek war am euh, demee dimanche 20 février tamit ndax ñuy wéyal tamit di laajte population bi seen gis-gis maanaam ci combat ba ku baax nuyu nañ la. ñoo lay fay. waaw ñu xam ni tamit suba am na combat bu rëy fële ca Pikine arène nationale ba muy dox ci diggante guy gi ak rëg rek ñu bëggoon a xam noo gisee combat boobu la. waaw combat bu neex lay doon nag diggante guy gi ak Reug Reug moom combat la quoi parce que ñoom ñaar ñëpp ay adversaire lan mais man nag moom guy gi laa jox yi mooy sa mbër quoi ma sañan mu daan mais dem ñuy ñaax supporter quoi ñu bañ yàq stade bi parce que ñoo bokk Sénégal quoi buñ ko yàqee ñun suñu alal lan yàq kon daan ñu gën a respecté bu baax a baax a baax rek bañ yàq stade bi ñëw ci fair play ñu ku ku waaw. Euh, yow daal nga ne guy gi nga jox favori waaye est-ce que xam nga nii Reug Reug xale la buy doog a ñëw waaye tamit amagul benn défaite ci li arène yi. waaw ah, moom mbër la parce que Reug Reug moom champion la quoi mais dafa tase ak ku ko gën a nekk champion parce que guy gi def na fu lu nekk Reug Reug na toj na fu nekk mbapat mais incha daal man guy gi laa jox favori waaw. ngeen ko diggee rek ñu ngi koy wéyal di ko def ñu tamit li nga xam ne mooy suñu reportage lu jëm ci wàllum combat bi ku baax nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay sëñ bi. ku baax euh, lamb bu mag dafa am. Euh, kii nga xam ne mooy doomu géejawaay di guy gi waaye tamit rëg-rëg lay dajeek euh, l'homme sans défaite loo xam ci combat boobu la. waaw combat boobu noonu li ma ci xam mooy bon guy gi mën naa ne benn côté bi sax da cee nelaw comprendre nga parce que rëg-rëg booy la te ci yoonu boppam la nekk comprendre nga mais su doon maay guy gi su doon maay guy gi man doomu géejawaay laa deretu géejawaay mooy daw sama yaram comprendre nga mais su ma doon guy gi duma ko jël parce que guy gi amul benn xeetu xam-xam bu daan booy bi comprendre nga. yow rek euh, rek nga jox favori. non wallaay su dee gëmm di bëre guy gi guy gi mbëru nante la mbëru nante la man daal su doon maay moom dëgg la xadar bee ngi fi jom jee ngi fi fit bee ngi fi doole jee ngi fi. mais maanaam comme ci côté bëre laa la wax mais xeetu xam-xam bi booy bi yor guy gi yoru ko ci côté fépp nag. mystique ak lépp booy bi da koo gën a pare fépp te booy bi yoon la yaa ngi dégg yoon la lu tax mbër yu mbëru géejawaay yeeg ñëpp teggi ko fi nekkum fi ñukku comprendre nga ah man de man man en tant que doomu géejawaay su doon may bokkoon naa ci encadrement guy gi du ma ne ko mu jël combat bi parce que sudul dara comprendre nga su dul dara guy gi deretu géejawaay bi mooy daw ci yaram bi comprendre nga mais digganteem ak rëg-rëg ah man de su ma doon su ma doon teg moom su ma doon teg laa la wax de doomu géejawaay laa mais su ma doon teg ci rëg-rëg laay teg waaw moom nag rëg-rëg la jox favori waaye ñu gis ni fan yi passé lu ci lu ci bëri dañoo supporter yi dañoo vandaliser li nga xam ne mooy arène nationale maanaam yàqate ko lan ban message nga mën a lancer ñooñ noonu nga xam ne ñoo ñëw seetaan si ko mais foofu noonu tamit xam nga nit doomu aadama doo doo doo doo doo soxore sa bopp parce que loo xamante ne jooy nga ko ay at comprendre nga yàlla di Macky loo ko contre contre contre am na côté boo xamante ne tane na man Macky Sall du sama président laay Laye Wade sama président mais dama la bëgg a xamal ne la loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ Macky Sall liggéey na comprendre nga te doomu aadama nag li muy liggéey yow yaa ko ci mën a jàppale comprendre nga mais tamit tey ci tey lii xam nga lii ñaari junni defaru ko ñeenti junni defaru ko ay million ay milliards lañ ci def comprendre nga lii dañ ko doon jooy ay at xam mbër yàgg na fee nekk tey bari na paayu ancien mbër yoo xam ne soo fëggoon seen bàmmeel ne leen mbër am nañ seen estatu bopp duñ la gëm comprendre nga tey ci tey suñu dundee ba yàlla dimbali ñu ba mbëri am seen statut bopp kon suñ fa nekkee maanaam di yàqate seeseeg yooyu noonu suñu alal rek la ñu yàq loolu rafetul waaw loolu moom naayisul waaw man moom loolu moom gis-gis bu ñaaw laa ko gisee du lu baax nag. ok loolu laa amoon lu ma. guy gi da waay ku loolu yow guy gi fan lay jaar ba daan booy bi. waay waay Serigne Bamba Mbacké loolu jaar ah? dafa mel ni ambiance baa ngi daw ba léegi werante la ci diggante ay doomu géejawaay kii nee na guy gi mooy daan kii ne ko guy gu daan. déedéet mais déedéet xoola ma dolli la ci fukki junni teel. ma dolli la cinquante mille teel su guy gi daanee. loolu loolu loolu lamb foot pari pare lamb la. wallaahi Nazim géejawaay laa dëkk doomu géejawaay laa mais guy gi laa la wax mënul daan rëg rëg. Eh, mais na def xel ba. loolu mais mënul daan saa waay. combat bi guy gi la combat bi guy gi suba le meilleur gagne guy gi waaw. am na vaar am na de eh, vaar. gis nañ fi Ama Baldé guy ku naqaree bëreel la mbër mu naqaree bëreel noonu yéen a ngoog ndax dina daan suba guy gi de wóor na yàlla gën su dof dof loo mook gaa yi xamuñu bëre jambar jambar jambar jambar gaa yi xamuñu bëre ñii nii cere ju ñu reere moo neex moo neex moo tax xamuñu li ñuy wax xamuñu bëre guy gi moo ko man moo ko ëpp doole fuuf waaye est-ce que xam nga ni rëg-rëg amagul defet gars yi dañ koy daw waa géejewaay nag surtout mais géejawaay yow xam nga ne géejawaay fa la naan naan ñëpp sooxe koo sooxe képp kuy naanaan géejawaay nga sooxe ko ñun Reug Reug sax doy ñu golox ndigu ñoo ngi koy xa maa la wax loolu moo ban vaar ñun dañoo daw loolu ñun daw ñu yoole yoole yoole daw ñu ko parce na moom Mohamed ñun géejawaay lañ dëkk ñun suñu waxtu waaw ñu leen di fàttali ko ñi ngi fi euh, rond point case ba ambiance ba xumu na euh, ñi ngi pronostiqué ñii ne nañ guy gi mooy daan ñii ne Reug Reug mooy daan waaw ah gis nga giléem balaa nga koo ñan jot ci bàkkan bi. lu leer waxu mag la <laughs> waxu mag la waaye ñii ci ginnaaw ñu ngi naan ko vaar euh, dina ñëw ñii nee nañ euh, guy gi mooy daan ah lu ma ci gën a jaaxal nag ñaari doomu géejewaay ñoo taxaw fii kii ne guy gi kii tamit eh, ne eh, rëg-rëg waaye tamit eh, yaakaar naa combat bu neex lay doon li ñu ci dolli rek mooy supporters yi ñu demee ak xel bu dal supporter seen mbër buñ ku ci daan ñu ànd jubilé nank ci njekk ak teranga dem ñi bi jubilé ji ko seen koñ waaye tamit képp koo xam ne jëlee na fi defet moo xam ne yàllaa ko dogalee noonu ndax kuy bëre mooy daan waaye kuy bëre mooy daanu donc nag ñi ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam waaye tamit di leen gën a ñaax rek Ah, stade bi ñoo ko moom suñu alal la te nit moom sa alal waroo ko yàq keneen moo ko war a yàq nga ñëw yedd ko ci waaye nag ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ ñun ñëpp ay doomu réew mi lañ donc géejawaay Pikine lépp benn la géejawaay ak tamit feneen yëpp yam Sénégal mooy gagné rek donc di leen ñaanal que le meilleur gagne restez scotchés si la euh, sur les programmes des sports